président Macky Sall maa ngi nuyu nag sama doom sama rak sama xarit muy kan muy Ablaye Fall chef de cabinet bu ministre de la jeunesse Mame Mbaye Ndiaye ñaam tey jii su ma toogee fii am fit taxaw yore micro di wax c'est grâce à lui yàgg naa fi nekk ci politique di base di ci base bi di politique kenn dégguma ci ay micro mais su ma amee fit moo ma dooleel moo ma jox moyen te it man ak moom duñu ñaar kenn lañu ticket la parce que ñëpp xam nañ ni politique gu président Macky Sall lu ci ëpp jigéen la ak jeunes yi ma ni nag feccum xale su neexee ndey ja moo jàpp ci mbagg yi te Ablaye Mame Mbaye moo jàpp ci say mbagg gërëm nañ la sant nañ la parce que siggil nga ñu ni ko Modou waxe léegi 8 mars bi fu nekk ñu ngi koy organisé nga bari lool ay engagement dagg lépp ñëw Thiès ànd ceeg ñun jërëjëf may wax sama mbokku jigéen ñi suñu bis bi tey muy 8 mars journée internationale de la femme ñu ciy sargal nag ñu xool ni ñun jigéen sonnoon nañu ci marché bi tey jii suñu demee gaz wàññeeku na ceeb wàññeeku na diwlin wàññeeku na denrée de première nécessité yëpp wàññeeku na donc ñu koy gërëm di ko koy féete fu nekk ci àdduna yéen ngeen tànn seen bis tudde ko sargal le président Macky bu ngeen waxee loolu te président Macky Sall nekk sunu leader mënuñu dudul jàppale leen ci accompagner leen si ñëw taxawu leen ci taxaw bi ma ci sant kenn muy suma xarit bi suma mag lu ma xewlee gis ko sama wet mu di le ministre Mame Mbaye Niang ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax dama bëgg sax ngeen invité ko mu ñëw nag di politique fii ci Thiès mu ñëw élire basam fii ci Thiès ñu jàppale ko parce que jeunes yi ànd nañ ak moom jigéen ñi ànd nañu ak moom ndax taxawaayam ak dëggu gu mu nekke ñu koy sant di ko gërëm bu amul app di nuyu Marème Diop Sila suma xarit suma yaay nekk kenn ci APR am ci taxawaay bu am solo ànd ak man di liggéey loolu yàggul xam naa bu ñu defee at dootuñu xaj fii di nuyu Marème Ndiaye di nuyu Thérèse Ndiaye di nuyu waa Kër Cheikh ak Lena Kane di nuyu waa Bayal di nuyu waa Parcelles waa Fayu maa ngi nuyu jigéenu Thiès yëpp di leen wax ni gis nañu seen taxawaay. ak seen cofeel ci la président Macky sal du ñu toog fii di lem bilan pour wax ni ñuy woote leen ndax lii moo tax waaye li ñuy wax ni weddi gis bokku ci 645 millions la dugal fii ci Thiès exclusivement pour les femmes de Thiès ak promesse ferme de rehausser l'enveloppe prochainement incha allahu rabbi donc defe naa ni fii monsieur le ministre ak mobilisation bi ni mu toll tey xelu président Macky sàll mën na dal que fii wii bi incha allahu rabbi moo fi gagné. yàqukat xel yi mënuñu ci dara. en déplaise aux obscurantistes, aux nihilistes, aux assoiffés de pouvoir qui tentent par des manipulations odieuses de détourner l'opinion. Mais ça ne passera pas. Le Sénégal, le Sénégal est un pays de démocratie. Le Sénégal a un peuple mature. Inch'Allah, le 20 mars au soir, le vie va l'emporter sans conteste. mbokki Petit Thialy mbokki Kër Maam mbokki Ngent mbokki Taaxi Kaw mbokki Medina mbokki kaw Fall mbokki dixième suñu mbokki kër Ablaye Yakhine Diop yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm mbooloo mi xol sedd na xool sedd na fii ci Thiès ñuy dalal ndaw lu mat ndaw ñuy dalal ndaw président Macky Sall ñuy dawal ñuy dalal le seul responsable national de notre parti qui accepte de mouiller le maillot à toutes les heures de la journée jusque tard dans la nuit ñu ngi dalal ku baax Mame Mbaye Niang di suñu rak di suñu rak di suñu xarit ma leen di seedeel ne yéen suñu am di jàmm yi ñun dey jotuñu ci président Macky Sall ñun dey jooyuñu président Macky Sall ndax Mame Mbaye lépp lu président Macky Sall warloo woon ak ñun ci base bi le ministre Mame Mbaye Niang mu ngi koy def ak ñun ci base bi du ci xalaatam du ci alalam du ci jotam daraam fekkew ko kon kooku bu mel ne noonu ak nit bu yegsee ba toog war nañ koo seedeel suñu mbooloo kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tey nag bésu kontante la mais lenn dama ko am di ko ñaan li may ñaan mooy dañoo dëgmal référendum le 20 mars may ñaan képp ku fi teew di soppe président Macky Sall di soppe jàmmu réew mi di soppe dalu réew mi di soppe askan wi nga voté oui bu ñu ca yeggee Mame ñaa Niang suñu ministre suñu xarit daf ma déey léegi benn mbir Mame Mbaye Niang mu ne bis bu ñu demee ba ca ngoon ga fii ci Thiès nga xam ne ñetti commune la bu wii bi gañee dina seet ka gën a ëppale poñ ci commune ya mu indi la fi benn concert bu mag a mag a mag nga tànn sa téeméeri femme mu financé leen ah kon mbooloo mi mbir mi fu mu tëddee dootul gañe rek dem gañe gi dafa am ngañaay ci ginnaaw lu ci laxasu ah ñu jël suñu femme tànn ci téeméer financé leen kon tey ji ñun amatuñu toogaay amatuñu noflaay nañu wër dox ci kër yi def bunt ak bunt kër ak di jiital ci nuyu bi suñu yaay Mariam Diop Silla mobilisation bi rafet na ku doon laam-laamee. boo fi egsee tey gis li ngeen dajale ci ay jigéen wax dëgg yàlla dootul laam-laamee ma jàpp ni que suñu yaay mareem dafay sot ca ki ngay sotle man bu mu eggee dinaa ko ko wax di nuyu Mariam Ndiaye di nuyu Binta sàmb di nuyu suñu yaay Adja Ami Fall ndaxte dara dàqul ci àdduna nga liggéey ba sa ñoñ say dëkkandoo say waa réew yépp nangul ni que sa bakkan sa doole sa am-am defal nga ci sa réew defal nga ci sa gox yàlla na la yàlla suñu borom fay yàlla bi am mën a fay yàlla na la fay di ci teg Léna di ci teg Thérèse Ndiaye di ci teg Ndey Sukay Guèye di ci teg Wuri Fall mobilisation bi rafet na mobilisation bi rafet na taxawaay bi rafet na maa ngi gërëm sama ñaari collaborateurs yi muy Lamine di Abdoulaye di ay nit ñoo xam ne ñu am wóllëre lañ ñu am ngor lañ dégg naa sànq bi kenn di wax mu ni lamin xaarul ba yi jox ko muy joxe dama koy dëggal rek loo def rek sa doole nga ko defe loo def rekk sa man-man nga ko defe ak sa yéene ñu la ciy gërëm di la sant waaye jàpp naa man ki ma xam gisaguma nit ji ko ngor mu ji ko leneen àddinaa ngi suñu kanam àddina nag yàlla mooy def ànd Abdoulaye dootul sama chef de cabinet sama rakk la Abdoulaye sama xarit la Abdoulaye sama confident la Abdoulaye sama wóllëre la defe naa di nekk fii di wax sama digganteem ak moom dañuy guddal wax ji rek waaye lenn de dinaa ko def bu ma demee dinaa wax président ni ko Abdoulaye ba nga ma dénkoon wax dëgg yàlla màgg na ëpp na may loxo jëlaatal sa Abdoulaye nga xool ndax jàpp naa ni lii ngeen def fii am na ñu yor lu ngeen ëpp fuuf li ngeen yor te defuñu ko donc yéene la balaa ma ci ñambaas ci wàllu politique parce que xam naa ni loolu moo ñu fi indi damay gërëm sama jigéenu bopp du sama jigéen sama rakk la nit koo xam ni boo xewlee mu jël dooleem def ci te du la laaj dërëm nit koo xam ni bu la dara méttee mu jooyle la ko nit koo xam ni boo amee mbégte bay séddale sax boo gestoo doo ko gis parce que danaan la ñi la gën a jege ca amuñu nga ko war a jox Aïda jërëjëf Aïda ji nga ma ngor ji nga ma lu ma rakk yi ma bokkal ndey ak baay jiwul jërëjëf maa ngi jël waa Thiès seede ak waa Sénégal yëpp ni leen sama rakk la sama jigéen la lenn rek laa dul def mooy kees gi moom du ma ko dénk parce que ma la ko dénkee nga maye ko ci benn fan. mënuñoo dajale lu toll nii ci jigéen ci bis bu màggee nii ca duñu fàttali li ngeen fi wax président de la république yéene la am ci réew mi. yéene la am ci ndawu senegaal waaye yéene la am ci jigéenu senegaal ndaw yi fi nekk mën nañ seede ni ko buñ di dajaloowe ak moom lim leen di wax mooy ci ndaw ñi laa am yaakaar ak ci jigéen ñi donc madame Marème Diop Sylla gën leen laxasaayu ndaxte ñun laxasaayu nañ réew mi nag toll na foo xam ni ñu ngi wàññ ñu ngi wàññ ñii ni ñoom ci beneen wàll wi lañuy ñuy wàññee président de la république proposé ay réformes yoo xam ne di ci wax fii sax defe naa yàqu wax la ndaxte li lamin ak Abdoulaye ak Pël di wax naan 15 points yi di ko jéem a expliquer ñi ñuy xëccool ak ñiy wujjee nee nañ ñoom waxatuñu ci 15 points yi nee nañ waxatuñu ci bilan bi nee nañ waxatuñu ci réalisation bi ay sos la ñu commencé dugal ci bopp askan bi ñi jàng tubaab bàyyi naa leen ak kayit bi ñu fi séddale defe naa ni ku ko liir gis ci lu wuute woo ak intérêt wu peuple Sénégal et particulièrement jeunesse su Sénégal boo ko liiree nga souligner ko ñëw wax ma nga jàkkaarloo caméra yi nga wax leen ay waxi kese dañuy jàppale góor jigéen ñi dañuy jàppale xawma euh, groupe sàngam dañoo bëgg ñaareelu mi dañuy nax ay waxi kese defe naa ni nag seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel lii fi ñëw ci mbooloo doy na directeur direction de campagne te comme ni ko président waxee dafa am ñoo xam ni dañoo namm jël ki dëkk fii moom defe naa jëllam soreetul parce que li fi taxaw fii nii bu fekkee ni que ñooñu ñooy dugg wax ak waa Thiès wax dëgg yàlla jëllam soreetul bu fekkee ni que Abdoulaye Fall bi nga xam ni gëm naa ni Macky Sall moo ko jàngal politique moo mën a dugg Thiès dajale fi lii gëw ma ni dese na fi dara Lamine laxasaayu leen. ñun lu ñu am yéene ne leen lu ñu am mën nañ ko bokk ak yéen lu ñu sañ sañ leneen nañ ko lu ñu leen mën a jàppale nañ leen ko jàppale ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier sama jigéen bi xaritam yi mu àndal wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na amuma seen fay yal na leen suñu yàlla fay ki tax ngeen di sonn muy président de la république balaa guddee tëdd incha allahu dina jot jëf ju rëy ji ngeen def fii Thiès wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu